salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am na nañu mbégte ànd a yéen tey nag da ngeen ñu gis fi nga xam ne nag moo di toolu soxna May Galas soxna mooy Galas di mag ci Serigne Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax waaye tey ñu ñëw fi nga xam ne moo di euh, tool yi nga xam ne moom lañu def fii ñu fi euh, def lu bari lu nga xam ne itam wuute na parce que am na pisciculture am na itam ay garab yu bari yoo xam ne yu wuute yoo xam ne euh, am na fi nga xam ne mooy euh, fii ci tool bi nga xam ne moom moo nekkee ci Ndindi ci kanam tuuti dinañ ànd ak yéen ngir ngeen gën a xam li nga xam ne moom la ñuy def fi nga xam ne moo di Ndindi mu nekk espace bu nga xam ne bu yaatu longeur bi toll ci trois cent vingt cinq mètres yaatuwaay bi toll ci cent vingt kon nag ci kanam tuuti Cheikhouna moom moo nekk ci caméra bi ñu ànd ak euh, soxna maam Fatou Kébé mu ñuy gunge ci liggéey bi waaye itam ñu fekk fi Baye Fall yi ñu liggéey liggéey bu am solo dinañu ànd ak yéen ngir ngeen gën a xam li nga xam ne nag moo xew fi nga xam ne moo di toolu soxna May Galas bi nga xam ne euh, moo nekkee fii ci Ndindi jox na ñu dem xool li nekk ci biir. ñu ànd ak euh, soxna maam Fatou Kébé ngir euh, xool li nga xam ne moo xew ci toolu soxna May Galas moom Serigne Fallou maam Fatou euh, gis nañu tool bi yaatuwaay bi bëgg ko découvrir lan nga ñuy wax d'abord ak naka nga gisee liggéey bi. gis ngeen tool yi leen ko élage suy waxee mu demee noonu ñu gis fi nag gàncax goo xam si ne macha allah ay lingom ak yeneen yoo xam si ne xeeti fruits yi yoo xam si ne daal xam naa mi ci biir tool bi. Mhm. ñu fas yéene ànd tool bi andi leen loolu. Mhm. ñu ànd ak Baye Fall sëñ bi d'abord nga présenté naka la. Mandikou Sall. Mandikou Sall waaw waaw. Euh, sëñ bi tur bi naka la. maa ngi tudd Mamadou. Mamadou ah waaw voilà Mamadou ñu gis euh, ñu ngi ci toolu Soxna May Glace yi euh, limon bi ñu yor nii lii lan la. asalaamaaleykum ñu ngi leen di siyaar leen màggal bu baax di sant sëñ Fallu bu baax di sant Soxna May Glace moom sëñ Fallu di tàmbale si barke si Abdoul Karim Mbacke limon bi nag mu ngi tudd Linda Tayit. limon bi dafa uteeg yeneen limon yi bi dafa mel ni lu am suukar. Ah, dafa mel ni lu gis ne limon yi euh, xëy na da gën ndaw wi ñu gis limon bu mag bi lan mooy différence. waaw limon bi nag moog limon bee bokkuñu parce que limon bi limon bi comme genre limon importé lay doon. waaw foofu ngeen soxna si moom dafa bëgg garab. bu mhm. muy def si garab moom. Mhm. yaakaar naa Sénégal fii. Mhm. si àdduna sax gisuma kenn ku ko siy def. waaw mel ni xeetu limon yi bëriwul ñu koy gis fii nii ah. waaw mën naa ne Touba fii rek la am. waaw. koy wër tuubaa ba tuubaa daj. Mhm. limon bi Touba rek nga koy gis fii. fii si toolu Soxna May Galas mu suñ fa waaw voilà dem découvrir euh, yeneen yeneen garab yi nga xam ne moom moo euh, am fii euh, ci tool yi Soxna May Galas voilà kii la ñuy wax mango kente ah ok moom moom lan mooy lan mooy lan moo ko différent lan mooy wutale ak yeneen mango yi ak dafay saf suukar lool dafa neex lool saf suukar neex a lekk te day gën a ngand nii nag. ah day day gën day gën a ngand nii nag. waaw lay def pour euh, ñor bi ak yooyu. période mango la mango nag du yàgg parce que booy xool fii parce que mango yi ñu ngi commencé rek te fii. Mhm. mango bu mu commencé léegi xam nga mango dafay mel ni mu ngi soog a doog a tuur. te fii moom mooy njëkk a ñorle mango. nan ngeen di def pour garab yi. garab yi di dem si ndigalu soxna si rek di roose. Mhm. waaw mhm. di roose rek di toppatoo di gas di fumier di roose. waaw voilà kon ñu dem ci yeneen yi à mango kent bi gis ngeen ko euh, ñu continuer dem ci yeneen garab yi nga xam ne moom fii voilà bii ban ban la ci ok bii mooy mango papaye ah ok mais ok ak bii ak bële ah yooyu ay mango papaye la yoo xam ne yéen ngi koy euh, def fii nii ah ok ñu dem xool euh, li garab bee ban la sapoti ah Eh, voilà mais moom dafa am ay doom ah actuellement dafa tàmbali am ay doom. sapoti mhm. bi waaw am doom sapoti day am ay doom yu gis nga doom yi ñu toll. ok waaw ah, doom yu mag la. njóobeen yi buñ ci amoon duñu wax dara te doom yi dafa dafa dafa dafa tàmbalee mag mais est ce que est ce que yomb na. bi moom doo raj mukk. fi mu nekk nii production bi buy jeexee nga gis beneen ñëw. bi balaa muy jeex sax da ngay gis mu commencé waat tontóor amaat yeneen doom moom toujours. oui oui waaw waaw moom c'est vrai. ok moom daal année bi yëpp moom day day day day am ay doom ah? am ndox moom day doom rek. ok est-ce que est-ce que arrosage bi yomb na. waaw arrosage bi moom. gisuñu ay machine gisuñu dara yëpp dafa mel ni seen ay loxo ngeen koy arrosé ah. waaw suñuy lañ koy arrosé ndax lu baax moom yombul. ñun dañuy saaku ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall. ak ngërëmal Sëñ Fallu ngërëmal Sëñ Tuubaa ak ngërëmal soxna May Galas mu Sëñ Fallu moo waral dañuy dem ci ndigalam ba jeex ñun dañoo ñun ñu dañoo sàkk pour doon ay matériel am mhm. fu mu jëm yóbbaale ñu ñu koy liggéeyal ba xëy dee mhm. loolu rek lañuy ñaan. voilà c'est important gis ngeen euh, da ngeen di yaraale jur aussi ah. waaw lii gi parce que gis nañu xaar bi ah bon am ngeen ay nag ci biir ah? ok xam naa bu ñu bu ñu bu ñu découvrir mango yi garab yi ba pare après ñu dem ci euh, jur gi voilà kon ginnaaw ginnaaw sapoti bi fan nañ jëm. Ah, ñu dem ci ok ñu dem ci limon bi ah. voilà ah, dafa am beneen limon boo ñu euh, dafa am beneen limon boo ñu bëgg woon bu wutee ak euh, bi ñu bi ñu ñu doon xool léegi nii ah ok. mais ba tey bokkul ak limon bee. ok du limon simple la fii lañ koy bayee Sénégal. fii ah, gis nga ko mooy doomi dijj lay am quoi. voilà bii. Euh, waaw naa bi moom mooy limon bi nga xam ne moom la ñu gën a xam Mame Fatou. waaw bii limon mooy limon bi nga xam ne daanaka moom la ñu gën a xam Sénégal. ok ok. non voilà kon euh, euh, ñu découvrir rek gis ngeen limon bi parce que ginnaaw bi ñu jógee ci limon bi nga xam ne moom moo am fii bii nag moom mooy bi nga xam ne daanaka Sénégal moom la ñu gën a xam mooy limon bi nga xam ne moom la ñu ëpp lu ñuy lu ñuy jëfandikoo am na différence bu euh, bu yaatu ak bii. kii kii kii la Dakar américain bi bokkul dakaar Dakar yi fii mooy comme dakaar yi ñuy jaay si prix du yi Dakar yi ñuy jaay si prix yi Dakar yi dijji. mooy waaw. ci waaw mais si beneen tool bi fële la ëppee nag xam naa ne boo leen fa eggee di ngeen ko gis waaw kon bi mooy euh, bokkut ak bi am Sénégal wala déedéet bokkul ak bi am Sénégal Dakar bi dafa sucré mhm. suukar kese la ok fi mu toll ñor na ni waaw bi dese naa ñor après naa la woon si yu yu ñor ah. am naa si ay quelques kii d'accord voilà ñu dem moo nekk nii tamit Dakar yu ndaw yi ngay gis nii garab yi mhm. garab yu ndaw yi yëpp moom la yii ñu dem euh, sidem bi moom greffé la. greffé la ah. waaw moom lañ greffé ak sidem France bi. boo xoolee gis nga doom bi ni mu dijjee. yan moo ci yi. kii ñor na bii ah. waaw. ok boo xoolee comme pomme. Hmm. voilà daa sucré bi. kon bii wute na ak sidem. wute wute wute ak sidem yi. wute na ak sidem yi waaw. Hmm. sidem bu dijj la. waaw mu kii jafe na gis fii Sénégal si dem bu toll nii. bu toll nii yaakaar naa yéen a koy soog a gis de. <laughs> <laughs> moo nekk nii ba tey. garab bu mag la. wax hmm. na bi de <laughs> vraiment dañ ko greffé ak beneen bu ndaw. ko greffé ak beneen bu ndaw. waaw am na beneen bu ndaw tamit moo nekk ci ginnaaw côté bële. kii kii derkase la. derkase garab bu ndaw la derkase. moom tamit toppatoo bi du du métti yenn métti yi. déedéet rosé rek fumier ah. rosé rek. ñaari yoon par ñaata. waaw boo roosee suba si roose ngoon. roose ngoon ah? nag. bii clémentine la. clémentine la mandarine clémentine la. moom mooy dem ba xonk. Ah. moo nekk nii gis nga ko. Mhm. voilà super. waaw clémentine la waaw clémentine la. Mhm. te ah? day bari doom waaw day te day dijj. bu mhm. dijj day dafa te day verte nii lay mel. limon bu ndaw gis nga nu mu amee ay doom. te bu ndaw la. te limon bu ndaw la waaw garab bu ndaw la. waaw ngi nii am na ay doom super li moo gërëfe la mhm. ay doom yi dijj lay mhm. mhm. gis nga tóor tóor baa ngi nii doom dafa mag waaw gis nga nii lay tàmbalee te day dem ba nekk ay doom yu mag ba nekk ay doom yu mag waaw gis nga ni mu commencé ndaw yi léegi day dem ba nekk ay doom yu mag waaw te dafa garab yi dafa ndaw waaw garab bi dafa ndaw am na fi ay morom comme bii lii mooy garabu tiir ah? waaw boo ko gisee da yaakaar ne tàndarma la dafa nduroog tàndarma. ok mais moom tàndarma lu leen ute mooy tàndarma dafa am ay jam-jam. waaw dafa am ay dëkk. te amul dëkk. bu dee benn dëkk. te xob yi ñoo gën a sew xobu tàndarma. ñoo ñoo gën a sew hmm. booy xool verdir bi tamit bokkuñu. Hmm. feuilles yi doom yi mooy doon ñooy doom tiir moom lañuy kii pressé ko mu mu génn tiir. ok super c'est bien ok. te moom du yàgg pour mu pour mu pour mu développement bi. waaw booy rek. waaw booy ah. muy dund. super c'est bien. fi ñu toll nii amul doom mi ngi tóotóor nii dem kii ndaw. Ah, ah, ok macha allah. garab bi moom xam naa dañoo fekk mango yi jeex mais ñett façon mango la garab yi am. benn garab bi. ñetti façon mango moo si nekk. ok benn garab bu am. ñetti façon mango. waaw ok muy ban ñetti façon mango am na mango papaye. am na mango jeeg bu gàtt bi. Mhm. ak jéeg bu dijj bi moo nekk ni waaw comme bii nii gis nga bii am na si benn boo xam ne comme hmm. dafa ndiroog moom mais bokkuñu dafa moo moo ko gën a ndaw hmm. waaw moo gën a ndaw waaw ak beneen kii bi garab kii bi mango papaye bi moo ci nekkaat waaw tàndarma bi tamit hmm. gis nga ko tàndarma bu ndaw la waaye gis nga nu mu meññee yu mag yi tamit noonu la ñuy mel day fees del suukar tàndarma bi waaw dafa mel ni Tunisie daal la jógee. parce que tàndarma yi ay variété la. ok ay variété la moom mooy bi jógee Tunisie. waaw yii Égypte yii Tunisie. ok waaw mais dañuy gis ma màggam day yéex bu dee bii nu muy demee. waaw fii di rosé rek mooy lu ma la wax rek soxna si moom garab moom yàqamtuwu si dara mais xam na ne dina. boo koy toppatoo rek. Mhm. li nga si bëgg di ko si am di ko ci mu yàgg mu gaaw di nga ko ci am ko am gis nga tàndarma bi xam nga ne xale la. waaw gis nga mu ngi am doom. mu tàmbalee ay doom moo lay wan ne rosé rek waaw léppay ñëw waaw day am ñaari yoon. Mhm. amoon na boo waddal ay doom. ok xam nga ah, taxaw noonu mu ngi nii commencé waat na tóor tóor nga garab bi day fees dell mhm. bii nag der kase bu sew bi la moo nekk nii. Mhm, mhm. der kase bu sew bi la. mooy der kase bu sew bi ah? waaw bu sew bi la mais dafa sucré trop. parfum bu neex la yor. Ah, waaw. c'est bu neex la yor. waaw. fii moom toolu Dakar lañ ko def gis nga Dakar yu ndaw. Dakar yu ndaw ah, waaw toolu Dakar la. Hmm. Mhm. boo xoolee gis nga garab yi. Hmm. ay garab yu ndaw lañ. ok yëpp ay Dakar yu ndaw la. bii moom mooy derkase bu dijj bi waaw derkase bu dijj bi day ngand gis nga nu muy tool waaw bii ñor na moo waral mu daanu nii derkase bu mag la hmm. gis nga leen derkase yi léegi lii moom mooy nekk ndaamaraas bi ah? loolu mooy nekk ndaamaraas bi saal bi saal bi waaw ñu koy moom la moom ndaamaraas bi maanaam moom la gars yi di jël di ko lakk génnee ci biir ok di ko jaay mooy gerte bi mooy gerte bi moom la ñuy jaay si. selecté yi kii selecté yi mu cher lool. waaw ok nekk nii ay façon der kase nag moo fi nekk quoi ci deuxième saison bi la nekk nii di tóor waaw. parce que avant moo doon taw amoon na ay doom. amoon na ay doom ah? yu bari sax. ko booy xool fii si suuf yi da ngay gis xoox yi. mais bi ñaata di ngeen ci am ay kilos yu bëri ah. dafay bëri ba doo xam nu muy nu muy toll. Mhm. dafay bëri bëri bëri bëri ba doo xam ni muy toll. ci ay kilo ba bëri lool. bëri day bëri lool après bu ko defee ñun dañ koy ramasser. génne mhm. ñu mhm. jël xoox mhm. ay garab lañ ciy defar rek. waaw. kii Dakar bu mag la nag. Dakar bu mag la ah. waaw gis nga tàmbalee na tóor tóor. ok parce que li ci ñore rek nit ñi di ko jëfandikoo. xéewal googu rek. waaw kenn xamul nu mu toll waxuma laa nag. tawfeex suñu borom ji ci nekk. kuréel kuréel kuréel kuréel. kuréel kuréel kuréel kuréel. ah kon ñu leen waaw ñu leen di wooyee ñuy ñëw. lii la ñuy lekk. Ah, lii la li nga leen di jox lii aliment la. moom la ñuy dundee. waaw moom la ñuy màgg moo tax ñuy màgg. bu dee ndox mi da ngeen koy changé wala da ngeen koy bàyyi. waaw ndox mi nag chaque 15 jours dañuy wàññi un quart. rempliraat ko ba mu fees. Ah, chaque 15 jours dañuy wàññi un quart. Hmm. rempliraat ko ba mu fees hmm. waaw. noonu lañ koy def chaque quinze jours. mais pour ñu màgg ba mën nekk mag ñaata bu ñu defee ay 7 mois 8 mois dañuy dem ba ay 4 kilos cinq kilos ba 6 kilos. waaw bu ñu defee 10 mois moom dañuy am 7 kilos. waaw ay jën yu mag la ñuy doon. ngeen génne yooyu. ñu génne yooyu après. dugalaat yeneen incha allah léegi euh, te xam nañ ne balaa ñëw balaa foofu sax bëgg nañ créer benn affaire maanaam femelle bi. bëgg nañ créer loo xam ne day doon femelle bi ak mâle bi ñu doon ay géniteur ñu créer aussi géniteur bu ñu màggee nii. Mhm. bëgg nañ si ñaar yoo xam ne wala ñu benn kii daal mhm. quantité boo xam ne dinañ ko jël def ko géniteur ak mâle pour ñuy produire suñu bopp boobaa doo doo dem di commander fenn jën di jënd jën. kon yii moom yii da ngeen koy commander ko. waaw di ko di ko yar fii di ko yar waaw. Eh, toppatoo bi est bi mooy lii rek boo xëyee huit heures jox leen deux kilos aliment ñu sekk ko. Hmm. boo xëyee le soir 6 heures nga joxaat leen 2 kilo aliment mm-hmm. di seen ndox bi di leen saytu di leen toppatoo. waaw waaw parce que boo xoolee nii. Mm-hmm. instant yi dañoo kontaan. Mm-hmm. moo waral ñu tas disperse ngay gis fu leen nga leen di gis fu nekk. mais bu ñu nekkul en bonne santé wala ñu nekk en mauvaise humeur. da nga leen di gis dañuy dajaloo ñoom ñëpp. ànd def benn bloc. mais instant yi dañoo kontaan. dañoo kontaan nii waaw dañoo kontaan. dañoo dañuy dajaloo. waaw loolu ay signe la daal yoo xam ne ñoom ñoo ñoom yow mii di di nekk ak ñoom da koy xam. ok waaw c'est important. c'est mhm. bu ñuy wàññi ndox mi un quart bi. tuyau bee la tëddal rek mu wàññi ndox mi. ah tool bi ngeen tëddal ci biir. bi la ñuy tëddal rek ndox mi dem si bassin bi. ndox mi dem si bassin génn si bassin bi demaat si beneen bassin bi. génn si bassin bi waaw feesal bassin yi ñuy tànk si bassin yi di roose si ndox si si si tool bi. bu dee pour pour remplir ko. buñ koy remplir aat fii la ñuy ubbi rek. Ah. moo nekk nii. Ah, moom ndox bu neex la walla moom ndox bu ngeen. ndoxu Touba gi la ndoxu Ndindi gi. fi mooy place su nag yi gis nga nag yi hmm. ay nagu Hollande lañ ay nag walaan la waaw muy nag yu jigéen kii moom nag bu jigéen la moom la ñuy rat waaw ah. waaw ak kee ak ci def mooy bii bu jigéen la tamit bu góor baa ngi nekk benn bu góor waaw bu góor moo fi waaw ñoom seen dund lan lan ak seen dund comme par exemple ñoom li ñu lekk quoi waaw ripaas bi lañ leen defar ak aliment bétail mhm. ak benn ripaas ak mboq mhm. waaw ak di lekk mboob bu bëri. ak di lekk mboob bu bëri. bi. joxu ceeb bi. Mhm. te bi li muy am ci soow day bëri. waaw day bëri parce que boo xool ñaari nag yi ñu leen di rat chaque jour. Mhm. chaque jour dinañu am 30 litres. 30 litres waaw 33 litres parce que boo xoolee butéelu aynu yi butéelu aynu yi kii la. 11 mhm. litres mais dañ koy duy ba mu fees. suba ngoon dañuy am 30 litres. suba si ñaari nag yi ñaari nag yi. waaw. ok ñu si am 30 litres. macha na solo waaw. li <laughs> yàlla taw fex la. léegi am ay ginaar aussi waaw am ay ginaar. Eh, waaw am nañ fii ay ginaar. bii laadum la bii azawar la ak bee bee tubaab beer pur sang la. waaw kenn nag bu ndaw la ñëw seen waajur a ngi ne la. Hmm. kee laadum la tamit noir blanc la. ok. Mhm. ñoom dañ du nàmp. nag. bi waaw lay nàmp mais instant yi nii comme que dañuy dañ leen di rat foog ñu fe obligé ko feral ko. pour ñuy mun a rat parce que boo ko bàyyee day naan day meew mi yëpp. ok. Mhm. te loolu tamit du liggéey doo am te loolu tamit du liggéey liggéey bi moom. li lay apporter ngay xool. bu bu dee mu ngi lekk. Hmm. di lekk si raqal bu baax. bu baax waaw day mel ni day remplacer meew bi waaw. comme ni leen ko sëñ bi waxee woon rek gis nga jàmmu job bi si mal dominant yi la bokk. bii bu góor la si mal dominant yi la bokk ñoom par saison lañuy ñuy accouplé wu par saison saison nawet bu bu nawetee lañuy ñuy accouplé di ànd góor ak jigéen. ñoom ak naati ñoo yam nawet ba nawet ba nawet la ñuy kii la ñuy nen parce que seen nen day soxla kii humidité waaw pour mu baax foog moom humidité mhm. waaw moom la ñuy récupérer di ko def si couveuse di récupérer seen nen def ko si couveuse bi produire si waaw bu saison bi di waaj a jeex ñu bàyyi leen ñu boof waaw même chose que naat yi ak ginaar yi loolu. waaw. soo xoolee jàmmu jóob yu ndaw yu gàtt yi nii. Mhm. yu nga xam ne seen génn yi génnaguñu. ñoom ñoo judd daaw. ok seen génn yi màggugul carrément ñoom ñoo gudd ñoom ñoo judd daaw ñoom ñoo judd saison bu daaw bi boo xoolee ñii nii ñoom ñoo judd saison bu daaw bi mais di leen gis léegi léegi commencé nañ tëb sax. Mhm. waaw seen génn guddugul mais ñu ngi tëb mot nañ sëkk. fii fii yëpp yëpp ay poulailler la léegi ngay gis ni yépp ba ci fond bi yëpp ay poulailler la machine bi mooy toj na ni ah, man euh, bi moo nekk nii mhm. moom waaw machine bi moo mooy toj na nii comment ça se passe nan suuf couveuse bi waaw dañ koy dugal waaw dañ koy dugal dafa am ay tiroir ci biir ak yooyu yëpp mhm. ba pare gis nga dafa ànd dafa ànd ak clim Ah, clim bi léegi moom mooy mooy téye humidité bi quoi. ok pour mu mën a du am yenn chaleur yi waaw. ok am yenn chaleur yi moom ñaata mën na day day jël ba ay 400 nangam nee na. kuréel kuréel kuréel kuréel kuréel. kuréel kuréel kuréel. léegi fu fu ginaar newoon ci biir wala picc rek wala mala day daw ñëw. waaye kuréel rek ñu ñoo nekk si gis nga fi mu nekk nit ñi lañ ragal quoi ñoom ñoo taxaw. jàmm jooju bu weex baaxee noonu. <laughs> ok. Hmm. ñun daal fi mu nekk boo nee kuréel rek ñu ñëw comme ni ñuy xontee jën yi rek. macha allah leen di xontee ñoom it. ok moo ñu fi bàyyi si tool yi te la ñu bëgg rek waaye nag Dakar si moom maanaam tey lépp ci mbaaxam ak ndimbalam ak yërmandeem maam teg gim ñu teg ci waar moo waral ñu mun ci xam leen sax ba di si waxtaan nii waaw kon loolu noonu yëpp tey dañ ko koy delloo di ko santaat rek te xam ne lépp moom ci xam la rek waaye tey buñ. naka lay da ngeen ko jàng wala waaw moo leen formé. liggéey moom moom moo ñu formé moom soxna May Galas moo ñu formé waaw amaan sax formé bi mun nañ na sol la daf ñu koo sol ci baatin rek. daf leen koo sol ci baatin waaw waaye maam tey formé bi day ñëw dañuy wax nii rek mais lim ñuy wax noonu daf ñu koy sol ñu koy jëf moo waral tey ñu mun a dem ba si tolluwaay bi mbaa di si am gii nii waaw tey luñ ci munti xam rek ci mbaaxam la waaw. moo ciy am. liggéey dafa na yi ñu fa tàmm di. waaw parce que boobu na loolu nag maanaam tey kii daxaaru tubaab bi la tey maam néew na nga gis ko fii Touba bëri na fii Touba waaye tool yi nga xam ne maam am na daxaar yii nii néew na nga gis ko fi ndax maam tey boo xoolee Touba li wërngal këpp dindi rek am tool yoo xam ne day ji meññi Dakar goo xamante ne ñëpp mën na ci barkeelu waaw tey boo ci dakaar yeeg mango yeeg ak. xeetu fruits yu bari tey maa mun nañ ne si toolu soxna si lañ koy gisee waaw waaye daxaar daxaar ji moom amaana mun nañ ne tamit moo ko fi njëkk a ji ci luñ gis moo ko fi njëkk ji. moo ko dem jëli ji andi ko fi. moo ko jëli biti réew. bitim réew mm. ñëw andi ko fi. Mm. kon moom moo ko def. ñu nekk Touba ak. ak euh, di ci ak di ci jëriñu ñëpp ñëpp ñëpp day ku si dem ba si jëriñu rek yàlla ak mbaxam la waaw ndax maam tey moom di ñaan daa yéene Touba lu faw xe li muy def si jëmm ji si si waaw ngir dem ak mbaaxam rek moo waral lii nii yëpp. yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp ci 24 actu ba léegi ñi ngi ci toolu soxna May euh, Galas bi ni ngeen ñu gisee rek euh, ñu taxaw ñi ngi ak euh, Serigne Mbacke di kenn ci njabootu soxna si ñëw ñu fekk ko ak bi nga gis nii xëy na wute na ak niñ ko xamee mais tey dafa ñëw ci tool bi ngir fas yéene indi ay leeral Serigne Mbacke ginnaaw bi ñu la nuyoo nga wax ñu ma bàyyi la nga nuyoo waaye tamit nga leeral ñu li nga xam ne moom moo xew fii actuellement. Mm-hmm. asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. Uh, ginnaaw bu ñu nuyoo ba pare di ñaanal uh, sëñ Mountakha Al mu yàgg fi tewer ak sëriñ Abo bi nga xam ne mooy sëñ Fallou di siyaare ñëpp sëñ Abdou Karim ak soxna mooy Fallou yëpp di ñaan ñu yàgg fi tewer ñu ngi bég bu baax ci <coughs> teewaay bi fii. ak uh, émission bu am solo bi ngeen def boo xam ne bi muy émission boo xam ne. Sénégal gépp war nañ ko bàyyi xel. Mm-hmm. ak euh, tànn gi ngeen tànn soxna si. Mm-hmm. ñëw ci moom ngir mm-hmm. euh, fésal ak leeral liggéey bu am solo bi muy def fii ci ci ci Ndindi muy liggéey bu am am solo. voilà voilà ndax mën nga ñu xam euh, liggéey bi am fi exactement ci tool bi. waaw tool bi liggéey yi fi am mën naa ne du benn liggéey sax liggéey yu bari la yuñ fi dajale. waaye ay liggéey la yoo xam ne benn bu ci nekk mënut a dem euh, bàyyi sa morom ndax bu ci nekk da ngay soxla sa morom parce que boo xoolee am na benn côté boo xam ne ci ginnaaw na le soxna si mi fa def ay nag euh, nagu Hollande yooyu di génnee meew ñoom ñoo nekk fële. ñoo nekk ci ginnaaw na le en même temps am na espèce volaille yu bëri yu mu fi def. am na ay pan ay ay pentante canaris yu bëri yu bokkul. ay péris pigeon bëri na ay ay ay yu mu fi def. en même temps y a des arbres fruitiers. Mm-hmm. am yu yu différents yu bëri yu fi yu fi nekk. Mm-hmm. mais lu ci nekk ci yooyu day day day soxla moroomam daal. Mm-hmm. moom lañ boole yëpp nag def ko ci def ko ci. ci tool ci tool bi waaw. ndax mën nañu xam euh, ak euh, dëkk bi importance wu li nga xam ne mooy euh, li nga xam ne moom la ñuy def fii nii. bon li ñu def fii déjà d'abord importance am ci ci dëkk bi mooy. mi ngi participer ci climat bi d'abord parce que dama defoon naa ba ay jamono benn waxtaan boo xam ne maa ngi ko jagle woon climat wu dëkk bi soo seetloo Touba dafa tàng tàng trop tàngaay boo xamante ne euh, daanaka jant bi day exposé waa à cent ci ci ci ci dëkk bi te amul benn humidité bu mën a tax ba nit ñi mën ko dékku niñ ko war a dékkee parce que Touba position ci Sénégal jegewul géej amul dex euh, te benn solution rek lañ dese boo xamante ne nii mooy permettre jant bi am humidité pour euh, climat bi mën a am solo ñu am microclimat bu stable mooy garab garab kese lañ mën a am donc euh, tool bi fi muy tàmbalee moom contribution ci ci climat bi mooy dëkk bi ñëpp bu ñu manko woon ci saxal garab mmh. mën naa ne la fii ak sept ans huit ans. Mm. bu ñu doxee tuuti dinañ gis Touba climat bi mm. changé. Mm. loolu mooy mooy li ci njëkk. beneen bi ci des mooy njàngale mi nekk ci tool ci ci tool bi. parce que euh, ñu bëri gëmuñu ne. suufu Touba war nga fee mën a am ay ay ay ay mandri ay mandarine. Euh, mën nga fi am ay raisin. mën nga fi am ay cocotier. mën nga fi am mango. mango yoo xam ne da ngay ñëw récolter ko. mu nekk mango yu bio yoo xam ne du am engrais du am du am dara euh, yooyu yëpp mënuñu woon xalaatuñu woon ni mën na fa am te pourtant souf si ak ak liggéey nag bu bu bu xereñ nangu na nangu na lépp te yooyu yëpp am na fi mm. léegi nag naka nga jàpp lan nga jàpp ne buñ ko defee xëy na nit ñi danañu gën a waat xel importance man gën a waat bàyyi xel mbay jëmbat garab ak yu mel noonu waaw loolu mooy li ngeen def nii rek mm-hmm. li ngeen def nii rek déjà moo tax ma ne émission la boo xam ne mm-hmm. ñëpp war nañ ko seetaan li tax ñëpp war nañ ko seetaan mooy euh, nit ñi buñ ko seetaanee danañ ci jëlee ay xam-xam te xam biñ ci jëlee mooy xam-xam la boo xam ne dafa ànd ak preuve parce que tool bi mi ngi nii mën nañ la yóbbu léegi nga watt ay coco nañ la yóbbu nga watt mango am na ay citronnier ah, mën nga fi sax dem napp ay jën léegi ah. <laughs> ci ci Touba donc loolu bu ko nit ñi seetaanee mm-hmm. am na ci ñoo xam ne xamuñu woon ne loolu mën na am. buñ ko xoolee euh, danañ xam ne mën naa am. lu mel ni lii ngeen def. su ko ñëpp defoon dina yaatu ba ñëpp xam ne. Mm-hmm. Euh, tool bi am na njëriñ. jeexal xam naa gis nañ tenue bi ak euh, ak charge bi ngay amal fii. waaw xam nga dëkk bi nag dafa am ay réalité dëkk bi méngoowul ak lu bari. Mm-hmm. parce que am na lu bari loo xam ne ku tedd kii moo moo ko moo ko bëggut ci dëkk bi. Mm-hmm. donc euh, pour nga mën a divertir mënoo fi def lu bari. waaw te comme man sportif la dafa bokk ci sama dund euh, pratiquement rëbb dafa nekk. Euh, passion boo xam ne dama koy pratiquer. da nga ko jàng wala. waaw euh, euh, dama ko pratiquer rek xam nga pratique la rek ba ba dem ba am ci am ci li nga bëgg. Mhm, yan lan ngay ëpp looy yóbbu fii. bon fii c'est c'est juste am na ay ay pigeon ay rognier ay pitax affaire yooyu rek juste pour améliorer sa tir ak yooyu mais bu ñu bëggee def partie de chasse dëgg dañuy dem ci terrain yi nga xam ne li ñu bëgg yëpp am na fa. àdduna bi toll nañ foo xamante ne lépp mën na am. Mhm. dafa aju rek ci pas-pas ak liggéey rek mhm. soxna si loolu dong moo ko may lii. waaw loolu rek la waaw. jaajëf tey ñu ñëwoon toolu euh, soxna May Galas euh, mu nekk euh, yaakaar naa découvrir ngeen li nga xam ne moo am fii ci tool bi mu nekk lu am solo loo xam ne ñu ko def fii ci Ndindi ñu gis ngeen Baye Fall yi ni ñu ko leeralee donc ñu ngi ak Bamba Diop ak Baye Fall yi Bamba naka nga gisee liggéey bu am solo bi nga xam ne soxna si mi ngi koy def fii ci Ndindi. waaw ah, di ci sant rek di ci sant di ci eh, di ci am fierté parce que boo gisee eh, liñ fi def yëpp ñu ne kan moo ko fi def ñu ne jigéen la donc loolu fierté la der man dama ko yërëm trop ci démarche bi loolu moo tax ma di ci sonn souvent ci yu ci bëree bëree bëree bëri ñu di ko ci appuyer parce que am nañ aussi coono bi mu ciy daj gis euh, daanaka moom dëkk fii la dëkk saa bu xëyee mi ngi fii daanaka ba ngoon mu lu retourné te mënoon na def aussi comme ñeen ñëpp niñ koy defee niñ ko xamee mais defeewu ko noonu dafay ñëw ànd ak euh, ñi fi nekk man chaque fois su fi ñëwee dama koy gis mu nekk ak ñoom di dem ak ñëw di dugg ak du sax toog benn place donc loolu noonu ma ko bu baax parce que am réew moom liggéey moo koy moo koy moo koy doxal. Mm. te liggéey boobu ci biir liggéey boobu li muy def nii da am solo muy bay. Mm. barki dem bi ñuy waxtaan rek nee na ma Abdoulaye Wade mm. joxoon na ko ci benn prix mais yaloon na ko donc yaakaar naa ne nag euh, bu ngeen gisee liñ fi def nii euh, war nañoo xam ne kon euh, ñi fi nekk état bi te Sénégal gépp bokk. donc te mu am branche boo xamante ni bii peut-être pour agriculture la. Mm-hmm. war nañ ko saluer war nañ xool yan taxaw la ñuy taxaw. Mm-hmm. ba ñiy def ak action yu mel ni mm-hmm. ñu man xam na ne leen di mën a dimbale. ok euh, mu mel ni Touba euh, Ndindi euh, suuf si su baax la xëy na nit ñi ñoo xamagul dëgg-dëgg naka lañ koy liggéey rek. waaw suuf su baax la et puis moom daf ciy sonn de. Mm. par rapport ak parce que daf ciy jànkuwanteeg ay jafe-jafe. Mm. mais daf koy affronter parce que moom mm. euh, courage boobu am na ko. donc daf koy jaral muy dem chaque jour ni may wax ak yow nii Dakar. te leer na ma ne ay garab ak yu gën a day jóge fii dem Mboro jóge fii fu nekk mi ngi fa. di def ay recherche. donc am na ay yoo xamante ne nii Gabon la ko jëlee. am na ne ba Italie donc loolu nag. nit loo bëggul du la ko donc loolu moo tax gis naa que ne. Eh, bëg na ko. te gëm na li muy def te xam naa aussi mi ngi ciy am résultat. parce que eh, ci début ba mais mu nekk nii moom alhamdulilah mi ngi ci am résultat mm-hmm. peut-être loolu moo koy encouragé sax mm-hmm. moo koy encouragé ba muy mën di pousser les devants euh, macha allah euh, Bamba Diop euh, nekk ku am solo vraiment ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ci dëkk bi Baye Fall yi xam naa ñu ànd ak yéen rek tëj kàddu yi ngeen di tëjee ci liggéey bi waaw di di di sant yàlla bu baax a baax sant Serigne Touba Xaadim sol di sant Alaaji May Galas mu Serigne Fàllu mu yàgg fii lool lool te wér te liggéey bi nii nga xam ne mi ngi koy liggéey ngir askanu senegal ñëpp bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax ndax soxna si moom dara ñoru ko lu dul liggéey ñun ñi nekk moom fii ci biir tool bi xam nañ ko li muy def ci produit ci suuf bu ko ñoom ñëpp doon def ci suuf si kon suuf si dina gën a dina gën a jëm kanam nii waaw jërëjëf macha allah sëñ bi yow tamit euh, ñi ngi sant baax di la gërëm vraiment yaa ñu woon lu bari ci tool bi euh, lan ngay tàggoo. waaw ñun ñu ngi sant soxna May Galas mu sëñ Fall di sant sëñ Fall sëñ Fall bu wér hmm. ndax soxna May Galas fu mu ñu jëlee ak fu mu ñu andi ñun rek ko xam hmm. amaana si lu ñu neewoon soxna mooy Galas ñu fa jëlee hmm. andi ñu si liggéey yàlla bii dañ koy sant bu baax a baax a baax a baax di ko gërëm mooy li mu la doon wax rek di ñaan yàlla nekk ay matériel am. fu mu jëm ak lu muy liggéeylu ñu ko koy liggéeyal si mhm. kàttanu suñ Fallu mhm. waaw mu ngi koy sant bu baax mhm. ndax liggéeykat la te jàmbaar la waaw jigéen ju mën góor la waaw liggéey bi na macha bu rafet lay liggéey waaw merci beaucoup mu tëj voilà jaajëf voilà moom daal Touba émergence la wax comme lu ñu naan Sénégal émergence. Mhm. moom day soxal Touba Touba émergence moom Touba ak suufu ndindi gi moo ko ñor. voilà macha allah waaw te yàlla na ko sëñ Fallou. Mhm. ak sëñ Touba dooleel gën a taxaw yokk ay fanam. guddal ay fanam wéral ay cëram. Mhm. ba mu yeggalee liggéeyam bii. lu muy ci xolam bi. yàlla na ko sëñ Fallou defal ba mu yeggale liggéeyam macha allah euh, jërëjëf euh, mbokk yi ñoo ko gisandoo tey euh, ñu ñëwoon ci toolu Soxna May Galas yi nga xam ne moo nekkee fii ci Ndindi Abdou tey nag yaakaar naa gis ngeen lu bari lu nga xam ne moo am ci tool bi ak Baye Fall yi liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy def yaakaar naa aussi tamit euh, li gën a am solo parce que façon garab bu nekk gis nañ ko fi nga xam ne mooy euh, ci tool bi donc kon loolu léegi dafay firndeel ne Touba wala suuf si wër Touba yëpp suuf su baax la nit ñi buñ ci sonnee rek lu ñu ci bëgg mën nañu ko am euh, ñi sant bu baax di ci gërëm di sant Cheikh Ahmadou Bamba Diop nga xam ne vraiment lu baax moo ko ñor te tey euh, bu lii amee donc loxoom moo tax mu am ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci OFG ak léppam sant soxna Mame Fatou Kébé mi nga xam ne moo ñu gunge woon sant tamit Cheikhouna Ndiaye mi nga xam ne moo nekk ci caméra bi sant tamit Serigne Mbacke mi ñu fi fekk di doomi soxna si di ko oyof moom itam ñu ngi koy sant baax di leen gërëm di leen jox dig daje incha allah ci yeneen i jotaay ci 24 ak yi jërë ngeen jëf